nga présenté waaw man la Maleye Diop responsable politique APR Thiès Nord membre des cadres au niveau national donc. Euh, ñu xamoon la nga nekk kàngam ci ci Thiès Nord nekkoon coordonnateur comité électoral bi euh, mais boobu ba léegi déggatuñ la tekkaaral jooju lu ko waral. Euh, Mbaye tekkaaral amul xañ na loolu constat wu nit ñi la liggéey bi mën nañ ci nekk sans pour autant ñu nekk. occuper média bi euh, nekk ci di wax ci loo xam ni je pense que solo si bariwul parce que liggéey warul ànd ak coow lu bari mais position bi ñu ci amoon démb ak bërki démb <coughs> ngeen baal ma moom lañ ci am ba tey euh, ñu xam ma ci parti bi muy APR xam ma ak suma xarit Thierno Alassane Sall mais gën ma ràññee ci ñi nga xam ne dañu bokkoon ci APR dem ànd ak. suñu xarit ndem sa yàlla Mamadou Dieng yàlla na ko yàlla yërëm créé woon booloo defar Thiès yàlla suñu boroom dogal ci nangu sama nawle yi ma àndaloon ci biir booloo defar Thiès ma nekk seen coordonnateur comité électoral ñu nekk ci ba suñu borom defal ñu ñu jël ñaareelu place bi ci ginnaaw ànd defar Thiès bi ñu jógee ci loole dañuy dellu ci activité yi parce que man fonctionnaire laa euh, dama dama nekk ci sama liggéey am ay obligation parce que kuy wax administration xam nga ni pouvoir hiérarchique la dafa am ñoo xam ni dañuy nekk ci ndigal ci ndigal loolu laa nekk di liggéeyal Sénégal ci wàll woowu waaye teewul euh, weekend bu jot maa ngi ñëw fii ci sama base ñu gën ma xam ci centre de vote mu Ndiaye Thiaw taaxi kaw jàpp Kër Cheikh ba uti tuuti médina Fall maa ngi ci base bi di liggéey nekk ci liggéey bi ak ñi ma ci bokkal muy jigéen ñi euh, wala ndaw ñi euh, ci loolu rek laa nekk moo tax ñu gëj gëj ma dégg gëj ma gis ndax dama jàpp ni euh, liggéey bi du du du du du du occuper média bi rek euh, média bi am na solo mais média bi war nañ ci dem bu fekkee xañ na am nañ loo xam ne nii message la bu ñu war a jàllale population yi wala lu mel nii nga ñëw seet si ma ndax jàpp ngeen ni géej ngeen ma gis bu ko defee ñu mën a ubbi ay pàcc waxtaan ci tolluwaayu réew mi waxtaan ci tolluwaayu parti bi waaye waxtaan aussi ci action yi nga xam ne ni def nañ ko ak yi nga xam ni moom lañu ñu ma wax nga ko léegi yéen a jëloon ñaaree bi place après local yi est-ce que tey sa xel dal na ci ni APR di doxe ci Thiès Nord waaw bon APR aussi ni muy doxee ci Thiès Nord xam nga dama fi nekk ak samay samay naataango ñoo xam ne ñoo bokk parti bi euh, ñu nekk sumay xarit ñu am rapport yu rafet parce que man ma lay ku ma xam-xam nga ni man ni ma mel rek laa mel maanaam ci ci ci dëggu ci am rapport ak nit ñi ci ci lu sincère euh, mais parti bi bu ñu waxee dëgg suñu bopp euh, xam nañ ni animation bi mu waroon a am ci zone nord nag des na parce que jàpp naa ni euh, ci fàttaliku man en tant que responsable maa ngi gëj a gisanteeg responsable yi bu weesoo Mor Ndiaye mi nga mbay mi nga xam ni ñu ngi ànd ci liggéey gëj naa gisanteeg responsable yi ca référendum ya Euh, xam nga loolu yàgg na bi ñu tollee ci élection au conseil yi yàlla suñu borom dafa def ma tukki fekkuma fi donc kon man ci sama jëmmi bopp ci réunion ci animation parti bi àndandoo ci ak responsabilité au niveau nord géej na am ci référendum bi loolu nag euh, jaaduwul jaaduwul ndax ñi fi nekk ci base bi dafa am loo xam ne moom lañ ñuy jàppee dafa am loo xam ni moom lañ ñuy nawee ndax ñoom bu ñu bàyyee seen lépp topp ci suñu ginnaaw ñun war nañu man di dajee di waxtaan euh, di sottante xalaat xool naka la ñuy dundalee parti bi ba lépp loo xam ne ni dinañ ko sumb lu mën a dooleel parti bi ñu mën ci am ndam euh, waaye wax dëgg yàlla fi ñu toll ci jamono yi jàpp naa ni APR zone nord ni nga xam ne waroon na ko doxe doxewu ko Euh, ginnaaw loolu xamoon nañ la ci ginnaaw Thierno Alassane Sall moom am na ñu jóge ci moom léegi coow li bari na lool ñuy tiire ci kawam yow naka nga jàngate loolu lépp. waaw bon ni ko ni ko ni ko ñëpp gisee noonu laa ko gisee ci à travers Thiès 24 ah euh, ba ci yeneen média euh, yàlla dafa dogal ci sa ci sa site bi sax laa ko laa ko xoolee waaye yàlla suñu borom defoon na bi nga xamee ni lu mel noonu dégg naa ni day am ay jeunes yu liggéey ak man woo ma wax ma ko. am na lu ma ci dox parce que dama jàpp ni parti bi ñoo ko bokk euh, li nga xam ne mooy solo si fi ñu toll maanaam les enjeux du moment nekkul xiiroo nekkul ŋaayoo les enjeux du moment mooy nañu dañu war a booloo booloo lu tax parce que xam nga jamono ñu ñu toll ñëpp gis nañ ni que opposition bi nga xam ne moo fi nekk di jàmmaarloo ak ñun ñu ngi jéem a boole seen doole. pour xool nu ñu parce que finalité bi yëpp mooy nañu fi jógee ñoom ñu toog mais programme moom amuñu ko kon ñoom fi ñu toll di booloo xool nu ñu fi jëlee ñun ñu ne fi topp ci ginnaaw président Macky Sall di muy liggéey liggéey bu am solo euh, def programme yu am solo def réalisation yu am solo li ñu war mooy booloo bokk ndey bokk baay au niveau national même mais rawati fii ci Thiès ba yegg si law fii ci Thiès Nord mooy booloo xam ni li nga xam ni mooy yoon euh, mbay mooy bu ñu booloo lépp lu ñu euh, sumbandoo nañ ci mën a am ndam ndax tey am nañ bilan boo xam ne war nañu mën a jox ndam mais bu fekkee ñun objectif yooyu enjeu yooyu ñun xamuñu ko ñi ñu war a xeexal xeexuñoo ak ñoom euh, di tiire ci ay ñoo xam ne suñu borom moo dogal cër bi ñu am ñu am ko parce que tamit je pense que nit dafay nangu ndogal suñu borom. Euh, ku ci mel na Thierno Alassane euh, dëgg la parce que aussi nit da ngay assumer say say say say responsabilité ba mu mat assumer aussi sa sa amitié parce que yàlla moo ñu boole mais cër bi mu am dama ko nangu d'abord noonu laa ko nangulee suma xarit Abdou Mbaw noonu laa ko nangulee le docteur Augustin Tine mais ñooñu yàlla moo leen jox cër président de la république woolu leen am confiance ci ñoom parce que je pense que ministre ba ci directeur général poste de la boroom réew mi bu la wooloo ba jox la poste de responsabilité ñun ñi nekk ci parti bi donte xam nañ ni ñoom gënuñu gënuñu ñu dañ leen ko war nangul euh, bu ñu amee ay divergence nag ñu xool nu ñu ko nu ko réglé waxtaan suñu biir parce que ay nit euh, je pense que bu ñuy ànd réeroo mënta ñàkk am mais waxtaan faw mu am waaye d'accorduma ci li ma gis nii nga xam ne lu lu regrettable la parce que euh, suma suma camarade yooyu te ñi ci bëri nekk samay xarit bi ma seetaanee seen vidéo bi aw ma lu ma neex ndax ni ma leen xamee noonu laa xamee Thierno Alassane mais man duma ci sori parce que li tax duma ci sori mooy dama jàpp ni dañu juum dama jàpp ni dañu juum ndax fi ñu jëm du foofu fi ñu jëm mooy ñu ànd bokk ndey bokk baay ñi suñu borom jox cër ñu nangul leen ko ñu àndandoo xalaat ci li ñu jublu ba sénégalais yi war ñoo mën a gën a wóolu ñu mën a jox président Macky Sall ndam fii ci Thiès parce que kenn ku nekk xam nga Thiès dañu am adversaire boo xam ne nii euh, loo loo loo ko loo ko loo ko nangulul nangulul war nga xam ne am na lu mu man ci réew mi donte am naa yaakaar man ma Malayka incha allahu rabbi lii ñu dëgmal jëm ci euh, euh, du jafe parce que jàpp naa bokk naa ci ñi jàpp ni au niveau nationale national dinañ ko jël mais nañu fexe ba bu ñu koy jël di ko jox président cees bañ ci dellu ginnaaw Thiès noor bañ ci dellu ginnaaw mais Thierno Alassane damay damay ci li nga wax na ma meloon démb ak bërki démb noonu laa mel ak moom tey suma xarit la li ñu boole moo ëpp doole politique te jàpp naa ni gor la boo xam ne nii gor gu set wicc la parce que nit ki aussi li muy wax mooy li mu xam ci doomu aadama rapport yi ma am ak moom rapport yu rafet la maa ngi ànd ak moom di liggéey eh, moom xam naa ni ku ku ku fonk président la xam naa ni ku bëgg Thiès la il a beaucoup d'ambition pour cette ville te nit la koo xam ni ku ku sincère la réero rek am eh, damay invité suma xarit ma daa ba invité mon ami Ndiaga Wade déggante naa ak moom léegi rek parce que bu ma ñëwee Thiès ñoom samay camarade de parti lañ war nañu wan a waxtaan ci tolluwaayu situation zone nord dama leen di xamal di leen ñaan ñu dellu si à raison te xam ni xeex bi feneen la waaye du fii euh, ci banaan wàll école bi nga jànge fii euh, di fi voté nekk ci sa koñ dafa am beneen doomu koñ bi bu ko defar muy baarataal euh, naka nga jàngate yooyu yëpp mais mbay dama kontaan euh, euh, li may yëg euh, kàddu yi may génne sax du ko dab xam nga jamono dafa dox léegi phénomène réseaux sociaux yi ñun ñëpp gis nañ ko image bi wër na àdduna man à travers ma ma ma ma page Facebook je lui ai rendu un un vibrant hommage parce que damay fàttali xañ na ñu bëri xamuñu ko il a été mon premier employeur. man jaar naa Jean Lefebvre euh, yàlla dogal it muy sama mag dëkk ci gox bi ñun ñu juddu nekk ay ndaw dégg jaar-jaaram dégg parcours am tey yàlla suñu borom dogal diplôme bi mu am man moom laa am il est ingénieur de conception man mii di wax ak man aussi diplôme boobu laa am te bokk na ci référence yi tax ñun ñu jëm ci wàllu woowu mais lii mu def dañ ci dañ ko dañ dañ ko war a sargal te te exemple la boo xam ni sénégalais bu ne ak foo mën a ne war nga ci jàng xam ni un développement c'est comme ça le développement d'un pays c'est à la base nit ku ne fa nga dëkk bu la suñu borom mayee ndam euh, may la may la may la loo xam ne mën nga ci dimbali doomu aadama yi nga dimbali ko parce que ça c'est du social man fi laa jàngee dëgg la. Euh, ba yàlla yóbbu ñu fi mu ñu yóbbu tey ñu mën a toog Dakar nekk fa ak suñu njaboot donte suñu njaboot jàngewuñu fi directement mais xam nga fii dafa jàkkaarlook sama kër nekk suma centre de vote euh, lépp lu may daan def ci activité politique fi laa koy defee bu ko defee nii dañu koy ñaanal d'abord gudd fan parce que jullit boo koy ñaanal da nga koy ñaanal gudd fan yàlla musal ko ci cat musiba ak balaa mais ñu ngi koy sant bu baax a baax liggéey bi mu fi liggéey daal mucc na ayib man personnellement wax naa ko ko de vive voix que yow suñu mag nga li nga def rafet na lépp looy def ci gox bi ñun incha allah di nga ñu ci gis fekk nañu nag ñun ñu am lu ñu doon liggéey dans le social ci ñi ñu dëkkal mais daal euh, am naa yaakaar ni lii bu ko ñëpp defoon Sénégal dina jëm kanam alors li mu laaj rek mooy ku mel ni président de la république son excellence Macky Sall wala des ministres de la république en tout cas de la commune de Thiès ñu def déplacement ñëw gis li Bara liggéey fii ñu xam ni kii c'est un citoyen kii li mu def acte bu bu bu bu jara félicité la kon ñu ngi ko ci ñaanal xam naa ni li mu ci li mu ci séentu moo doon defar rek ngir goxam jëm kanam waaye am naa yaakaar ni waa gox bi dinañ ko delloo njukkal jeudi le 27 incha allah euh, man personnellement dinaa ñëw en tant que waaye en tant que acteur politique ak doomu gox bi. Euh, ma ci sa kàddu gu mujj euh, lan ngay dénk acteur politique yi ànd ak président de la république fii ci Thiès. bon li may dénk ñun ñi nekk ci langue politique yi fii ci Thiès mooy nañu xam ni politique bi mbiri àdduna la fi la yam euh, war nañu dese suñu ngor war nañu dese ay valeur parce que dañu am identité culturelle Thiès ñëpp xam nañ ni dëkk bu mag la ci Sénégal ci wàllum politique dafa am ñu fi newoon démb tey newuñu fi yàlla dogal ñun ñu ñëw fi euh, ñu war a sóoraale ni suba dinañ fi dinañ fi jóge kon war nañu euh, lépp lu ñu def mu nekk loo xam ni génération bii ñëw après ñun dinañu ci mën a naw maanaam mooy ñu def politique ci ngor ñu def politique ci wax ju rafet bàyyi xiiro bi bàyyi ŋaayoo bi ñi ci opposition bi sax suñu donte bokkuñu formation politique bu ñu jógee ci waxtaanu politique bi waruñu xiiroo waruñu ŋaayoo parce que Sénégal ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu ko xarñaar nit mën na def politique topp euh, pour ñu régler aspiration wu en tout cas préoccupation autant pour moi yu population yi ci ci ci jàmm ci salaam en tout cas Thiès li fi xew fan yi man personnellement en tout cas rafetlu wu ma ko ndax ñi fi suñu borom jox ndomba tànk nañ leen ko nangul ñu yërëm aussi ñi ñu nekkal jàppale leen te xam ne APR daal li koy dooleel partout dans le Sénégal mooy booloo président loolu la bëgg am naa yaakaar ni Thierno Alassane loolu la bëgg ci loolu lay woote naataangoom yi mu fi nekkal ku ci mel ni docteur Augustin aussi ak ñoom Abdou ba ci ñoom docteur Ndiaye man awma ak ñoom benn benn animosité parce que j'ai choisi cette ligne là nekk ak ñoom ci jàmm ak salaam du ma tee su may opinion politique am samay prise de position parce que àdduna moo doxe noonu maa ngi woo ñëpp ci ci jàmm ci salaam ci ci nawloo nawloonte